إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد Vraiment, c'est un très joli montage d'abord. bah oui, donc euh, c'est un peu de l'émotion. Mm. Euh, compliqué mm. de, cela parce que euh, Pape Bouba Diop euh, nekk na nit ku xamante ni nit ku ku ku ku mag la si wàllum sport donc c'est tout à fait normal mm. xol yi daal mel ni daal di am donc ku mel ni un certain monsieur Biagui peut-être qui sur le terrain en 2002 Japon quand Bouba Diop marqué ce fameux but. donc euh, qui connaît euh, cette, cette, personnalité sportive, qui connaît Djar Djar Babou Boulim depuis que nous c'est tout à fait normal que nous avons dit donc euh, euh, dañ koy euh, jale ñëpp parce que c'est c'est c'est le Sénégal qui perd mais les gens de de cette personnalité de de Biagui qui ont vu Pape grandir qui ont vu Pape faire ce qui a fait c'est tout à fait normal ñu ngi lay masoo bu baax a baax. vous savez euh, moi j'ai trop mal. أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفعوا لا إله